jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha xam-xam bi ci jaabu yàlla gi ci murit gi réew mi moo fi raw sëñ Mountakha. nañu bàyyi xel ne appel bari xam-xam nu jaamu yàlla gëm sëriñ Bambay joxe addiya ay cër la nit dina bari xam-xam di jaamu yàlla du ñemee addiya nit dina ñemee addiya lool du mën a jàng du mën a jaamu yàlla sëñ Mountakha raw nit ñi. gisuma ku ko pa diya raamal nay baayam raamal nay magam ba xëy donnu Touba donnu njaarim donnu Porokhane sëñ Modou Mbaye Samb wax na ko léegi ku masa moom Touba moom njaareem sëñ Basiru moom Porokhane mu xëy moom Porokhane moom njaareem maa ngi ñaan mu yàgg fii sëñ Basiru nag ab yëngukat la te boo bindee yëngu bind yokku benn yax la yoon yi bu yënguwul du yokku sëñ baaraay maamam sëñ xaadim awa ba moo ko meññi miina naa ko lool ca Abidjan bu masaa kaala wi ñëw da ngay deen yi doomi Cheikh Saad Bou rafet lool am xam-xam amu fit di dox ci dëgg kon bu la meññee bàyyi fi nga sigg sa bokk yi ànd ak ñoom ñii mag la mag ñii ñii di say doom ngeen ñëw leen ñu sulli mbirum sëñ Baara ba ndaw ñi ko xamul xam ne sëñ Baara sëñ Bamba ko jur soxna Aminta Lo mi joxewoon ak ruum ci lislaam mooy ndeyam te jigéen lu mu joxul doomam ci sëriñam doom ji mënu ko am baay bu dee joxe ku sa lay tàllalul doo am loxol doom jotul bàyyi ndayee nangu jox la soxna Aminta sedd sa maam te kat def na ci lislaam loo xam jigéen mësu koo def te jigéen dootu ko def dee nuyoo ni sëñ Bàmba di dem ba soxna Awa bu sa dem ba Aminta loo dem soxna Aminta ni ko bu ko awa yëg naa wàcce baara am juróom-ñaari weer ma dénk ko ko demal laaj jana loolu man na may guy mbind mañ na Daaru Xuddoos lu ne yow nag nun Baye Fall yi war nañ laa bëgg da ngaa niru waa kër Cheikh Ibrahima Fall te kat dinaa wax lu bariwul Baye Fall yombul de jullit bu dox mooy taalibe taalibe bu dox mooy murit murit bu dox mooy Baye Fall ndax jullit garab la taalibe matt la murit këriñ la Baye Fallub doom la garab des koy gor matt day tàkk këriñ day boy waaye lépp doom day feyu xal yow da doom doom nag bu laalee cin cin weex bu ko cin laalee weex koy boyal teggi ko bu ko xal sóoroo mu ko garab gu dugg ci bàmmeel des na la gor matt gu fa dugg di nga tàkk këriñ gu fa dugg di nga boy wàllab doom man naa jaxasoo suuf mën na lu ko dara mooy murit saadix am na leneen loo tàbbal ci biir loo xam ni boo ñu woon ndaanaan ndaanaanul murit doo ko xam muy sëriñ Abdourahmane Fall Tilla la góorug yàlla la maa ko xam maa ko jàppale maa jàppale Cheikh Béthio maa jàppale Alaaji Bakki Fay man fa dara nekk xam naa ko mosuma topp ku góor yàlla moo mel ni tout tànk yu toog nga boole ko ci te bokk ci ndax maamam mi tax mu feeñ sëñ Bamba ko jële gànnaar andi ko Touba mu jur Amina te mu jur ko dafa am loo xam ni xam-xamam yàllaa koy xam ñu dimbali la dimbalul baatin ku jàng xam ku jaamu yàlla ragal ko am damay damay uh, weranteeg benn ostage foofu laay daaneele bu ma waxee mu weddi bu waxee ma weddi ba yàgg man ko doon wi xeex man ma la tax man ko da ngaa jàng ba xam te jaamu woo ragaloo moo tax amoo ku génne ENEA wala ENAM ñu jox la say diplôme embauché wul la nga liggéey bu wér yu dee kenn du la fay yow am nga xam-xam wala jaamoo yàlla ragaloo ko boo tax amoo leer sëñ Bamba ko amul leer xamoo ko Moussa Ka nee na bi lambi sëñ Bamba tëggee kuy wàllu wenn wàllu yi ñu ngi koo ndax benn ministre yi ñu ngi wut tàngalu Macky Sall ak ministère yi diggante suñu bamba ak wàllu yu raw na ko kuy wàllu yu xam nga sëñ bamba mooy seefu ñëpp jur sa maam mu jur sa baay ngay ponkale taar nu ngoo liggéey am wërsëg di ko delloo ci suñ baara faaw nga am ndam sa bokk yëpp ngi toog ku la gën a bokk nekkul lu suñ fallu ma sa bég di ko wax bu suñ baara eh, eh, tàngee bu ko bu ma daanu lu suñ fallu mante sago suñ baara mën na ko jëw tàngoor ñoo bokk ndey ndox mi sonn am mi te maama aw busa la àndal maa seex soxna mbare ma kunta jël ci soxna mi tël loo jël ci maama aw busa toll ni mu toll di xaas sëñ Ba rek la man moom rek ko man moom rek la sëñ Ba ma ne yaa ko àndal tàbbi ngeen àjjana te demagu leen moom rek ko dégg gane àdduna ñuy serafal ki ñëw andi na seen seen gërëm yéen juróom-ñaar yi ponk yi nga xam ni ay xut bu saxan lañu ne Seydou si nee ku am carte na nga ko téye boo ñëwee di nga dugg ku amul carte ndokk yàlla nee na ku ñëw li mu santane daal kuy ñëw na nga yiw sangu leen ba set sañse leen soccu leen ñëw leen toog normal dégluwul li mu fiy wax kuy dem jariñoo ko murit daal bu bëggee doon murit day civilisé man sama murit maa ngi ko jël ci sëñ mu doomin te Fall jàng alxuraan ni sëñ sooy bu ragal yàlla ni sëñ Abdou Xaadir di liggéey ni sëñ Abdou Laat maa moom Cheikh Sidi Maxtaar borom jumaa yi Wassare mu julli ko fu ñu waxtaanee ci lislaam tudd jàkka ak jumaa wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim mbokk yi gannaaw bi ñu sant yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi ak ci ñu ànd ak dégloo jërëjëf mbokk yi ñu leen di nayu di leen siyaare bu baax man la sëñ Babacar Cissé coordonnateur de l'AIS asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di amaan mbégte di taxawaat ci bërëb bu mel nii te mel na ni xaw nañ fee gëj a taxaw ci ñaari at yi paase xëy na loolu la yàlla dogaloon kon euh, sëñ Basiiru ñu lay nuyu ci turu AIS bi nga xam ne sëñ maam Cheikh Mbacke Xaadim Awa sa Sarak moo ko jiite man mii ma nekk coordonnateur bi. ah sëñ Bassirou nekk suñu partenaire ñun waa AIS kon jàpp naa ne bés bii bu ñëwee bés la boo xam ne bésu waa AIS yëpp la te firnde bi mooy man maa ngi nii taxaw di wax ci tur waa AIS te kuréel googu xam ngeen ne dafa ëmb mbooleem këru diine yi nga xam ne ñoo baaxoo nekk ci réew mi di en réew mi di mu nekk kuréel goo xam ne li ko tax a jóg du dara lu dul benn noole këru diine yi yi nga xam ne mag ñi démb ñoo àndoon nekk benn di doon liggéeyal yàlla ba tey tax tey Sénégal mel ni mu mel ba li ñuy tuddee l'exception sénégalais tey bu ñu koy wax li ñuy tuddee l'exception sénégalais tey bu ñu koy wax loolu damay wax ne mag ñi ñoo ko liggéeyoon démb kon sëñ Bassirou Mbacké xaadim aw Ba sa bés bi dëgg-dëgg boo koy xool daanaka dangay gis mu méngoog turu yàlla bi ay alxuraan bi nga xam ne moom la yàlla suñu borom di wax te waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraqu ak innamal muminuuna ixwatun nga xam ne mag ñi loolu ñoon dund démb boo gisee Sénégal li ko yàlla may li tax yàlla may ko ko mooy ne mag ñi mag boo ci jël ci réew mi fa mu juddoo bokkut ak fa mu maanaam fa mu génne àdduna bokkut ak fi mu maanaam fi mu gëne àdduna bokkut ak fi mu génne àdduna kon loolu li ciy déggee mooy ñoom ñëpp dañu àndoon di wër yàlla xamante ci toolu yàlla fonkante ci ba tax seen i njaboot yi ñoom itam di dundal loolu kon sëñ Basiru sa bés bi damay wax ne bésu mbooleem këru diine yi la te firnde bi mooy incha allah bu ñu demee ba ca bés ba bépp këru diine boo xam ne yaa ngi ci réew mi dëgg-dëgg sa délégation dana fa jóge ñëw ci bës bi ndax loolu yow yaa ko lebal këru diine yi sëñ Basiru Mbàkke xaadim aw ba amul dara luy xew ci benn këru diine ci réew mi lu dul da ngay gis sëñ Basiru dëgg-dëgg taxawaayam mu nekk taxawaay boo xam ne ah, kon sëñ Basiru bés bii dañu wax ne bés la bu am solo ndax yow sa taxawaay ci këru diine yi ñëpp gis nañ ko ñëpp ràññee nañ ko kon sa bés bi bésu mbooleem këru diine yi la te jàpp naa ne bu ñu demee ba yegg ci bés ba incha allahu loolu dana nekk réalité ndax loolu yow yaa ko lebal képp koo xam ne nitu diine nga dëkk ci réew mi bés bu mu mos a am sa taxawaay ràññeeku na fa sa taxawaay am na fa solo kon sëñ maam seex Mbacke ci turu AIS ñu ngi woo mbooleem këru diine boo xam ne mu ngi ci réew mi di wax ne bés bii kat bés la boo xam ne bésu waa AIS la waaye bésu mbooleem këru diine la ndax sëñ Basiiru mi ko wootee nekk sëtu sëriñ baare Mbacke dëgg-dëgg liggéey na ci réew mi loo xam ne bu wootee def naa ne ñëpp war nañ koo wuy si ndax firnde rek doy na ci liñ gis fii tey ci mbooloo ak këru diine yi nga xam ne ñoo fi dajee dëgg-dëgg dafa nekk loo xam ne yow yaa ko lebal nit ñi lebal boobu nga ne ko lebal nag ku xam taarix du doon lu la jaaxal ndax mag ñi nii la ñu nekkoon ci réew mi loolu nag dañ koy sant yàlla damay wax ne génération bu mujj bii war nañ gën a sauvegarde lu mel noonu bu màggalu Tuubaa jotee amul benn kër diine buy des ci Sénégal bu gàmmu Tiwaawoon jotee amul benn këru diine buy des ci Sénégal te gis ngeen réew yu am na ñoo xam ne du ñu waxante am na ñoo xam ne du ñu demlante am na loo xam ne du ñuy sax sax dara loo xam ne jàmm la kon nag waxta si moom bi hablillahi jamian wala tafarraqu suñu bés yaa koy incarné kon ñu lay ndokkal ci bés bi yàlla si borom yóbbu ñu ci ñu yegg ci jàmm ba yéene yi nga ci am pour liggéeyal nitu yàlla yi yàlla si borom defal la ko ci defal ko ci mboolem ci di wax salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di jaajëfal si Ahmad Bamba Xaadim Rasul ñu ngi sant bopp yi yëpp di yëkkati nag sama kàddu ci ndigalu sama ay kilifa Serigne Bassirou dafa taxawal bis bi def ko ay at yu yàgg yàlla dogal ren mu ci rendre hommage Serigne Moustapha Massamba sëriñ Ahmad mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Serigne Moustapha yabal fi lu ëpp ci njaboot gi mën naa ci lim sëriñ Waysul Xarni yu mu ngi ci jataay bi sëriñ Modou Mamoun mu sëriñ Moustapha Massamba mi ngi ci jataay bi ñuy samay kilifa ñu jox ma kàddu gi nag ma woo njabootu Cheikh Massamba gi rawatina njabootu waa kër sëriñ Moustapha ngir bu amee bis boo xam ne moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara lañ koy defal di ci raadru amaas sëriñ Moustapha fu njabootum Cheikh Moustapha nekk lu mu jàpp war na koo bàyyi te wuy ci bis boobu kon njaboot gi sëriñ Ahmadou mi ngi leen di jox ndigal ci bis bi ngeen waajal ko buñ ci agsee ngeen teew ci te ànd ak yar ànd ak teggin te lépp lu koy jagal bu leen ci kenn njëkk te bu leen ci kenn mujj ñuy sant bu baax sëriñ Basiiru Xaadim Awa Ba ci taxawal gi nga xam ne taxawal na ko bis bii ndax ndakaaru soxla na bis yu mel nii yu bari te bii bokk na ci bis yi ci ëpp doole kon ñu ngi ko ciy félicité di ko ci ñaanal yàlla nañ ko yàlla may ndam ñu ñaan ñu àgg ci ci jàmm dugg ci bismillahi rahmaani rahim yi génn ci alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Tuubaa mu Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg te wér eh, Mbàkke ñu ngi sant ñu ngi gërëm tey kàddu yi dina xaw a diis lool ndax dañoo habitué wul mbooloo mi mën cee wax waaye Mbàkke yaa ñu may fit ñu wax ci 15 ans ngi ne ñu ngi ànd ak yow Mbàkke di organiser bés bi Mbàkke damay wax ni boo joxee kàddu foog ñu évoquer souvenir maanaam foog ñu fàttaliku dem ba nga fii ñëw première édition kenn xamul fan nga jëm kenn xamul lan ngay def dañoo jaaxle dañoo taxaw rek di la xool Mbàkke muy personnel bi boobu personnel bi ci laa bokk ma ne sama mag yi ñuy wax Amadou dëgg yàlla Mbàkke ñu dugg ci mbir mi foire bi nekk béréb bu lëndëm lëndëm ci bépp faat na foire fépp lëndëmoon dara leer amu fi woon Mbàkke ba nga fi egce la fi leer am ci la lu bari ci la soppeeku Mbàkke e Mbàkke ñun ñu nekk ñu nekk ay ay bagages yi sëñ Baara waaye xamuñu dara Mbàkke ci ci ci leeru sañ Baara Mbàkke wax dëgg yàlla bu dee ku mel na man sëñ Xaadim Awa Ba laa xamoon di dégg sëñ di dégg sëñ sëñ Abo ñooñu de laa xamoon Mbàkke waaye Mbàkke ba nga tàbbee fii njaboot sëñ Baara gi yëpp xam nañ ko xam nañ leen léegi Mbàkke à travers journée culturelle bi di saafoonteeg Mbàkke di saafoonteeg Mbàkke Mbàkke te kuy jaxasoog kuy kuy kuy jaxasoog ay borom xam-xam dafay am lu ñuy def ci yow Mbàkke bes bi dafay am lu mu defar bés bi dafa defar ay nit ci foire defar foire bi bu foire bi déggee international Mbacke yow yow yaa tax ak sa bés bi barke sëñ Baara e eh, ku mel na man nag da ngaa def ci man la nga xam ne mu lee ma gënal ay milliards ne su ma dumee ma demee guy mbind man prince laa guy mbind kër gu nekk laay dugg fu ma dugg ñu ne ma jeg sama benn doom ne ma pap xanaa yow sëriñ sëpp la xam ma ne ko ci journée bi lañ ma xamee wax dëgg yàlla loolu ku mu doyee dara dootu la doy guy mbind aw ma fa frontière kër gu nekk laay dugg ku ma ne jàpp loxo mu ni ma jeng loolu ku mu doyal dara dootu la doy loolu ci bés bi laa ko amee Mbacke eh Mbacke boo ñu joxee kàddu ci bés bi dinañ sant nañ gërëm gis nañ dimension bi bi bés bi toll ñun ñi ànd yow depuis quinze ans gis nañ ni nga ñu noppalee dana ñoo noppal ñaw leen seen poste téye leen seen xaalis sant sa leen ñëw leen taxaw leen nii Mbacke ñu ngi rafetlu aussi management bi parce que da neex a àndal mooy li may wax management mooy ku nekk xam nga fi nga koy teg da ngay rof di rof da ngay jëlee nit ca waañ wa indi fi jëlee nit ca waañ wa yóbbu ca waañ wa ku nekk xam nga fi nga koy teg Mbacke eh bu ñu delloo fi dañuy santaat rek di gërëm di la ñaanal ko yàgg a def barke sëñ Ba ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax eh, di jërëjëfal Serigne Touba di sant di maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke suñu borom yàggal ko fi loolu ti mu ànd ak wér di ñaan yàgg gi wér gi mu ànd ako suñu am ni Moustapha Fall Maodo Menda ak njaboot suñu Tuubaa Cheikh Fall gépp euh, di santaat bu baax njabootu suñu Tuubaa gi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal jotaay bi di leen jox seen wàccuwaay di ñaan Cheikh Mamadou Bachir sa bés bi yàlla na sëñ Baara Mbàkke defal lu kawe sa njort ndax dañuy wax ne yow bàyyi faalub sëriñ Baara nga waaye ñu ne suñuy kàddu dañ koy jëmee foo xamante ni dañoo bëgg euh, yëf yi gën a xéewale dama koy wax saa su ne ma daanaka journée culturelle bi ñu fi mujjee woon si la yëf yi taxawoon mel ni diine l'islam daal taxaw lu dul Touba dara yëngutuwul ren ji ñu dekkaliwaat li nga xamante ne mooy journée culturelle bu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñuy ñaan la ci taxawoon yëpp. ñu ngi ñaan ci barke Cheikh Modou Lamine Bara na mu faje woon aajo ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon ci feeñu addu addunam yal na bés bi ànd ak bés loolu ba yeeyuwaat lépp loo xamante ne taxawoon nga ñu ngi koy ñaan ci barke Cheikh Modou Lamine Bara Mbacké ndax bés bi it attan na ko waaw kon ñu ngi ñaan daal ci barke Sëriñ Bara euh, taxawaay yi gën a yàgg te wér Cheikh Modou Bassir ñu ngi la koy ñaanal di ko ñaanal njaboot gi nga àndal yëpp ñu ngi santaat bu baax di woo ñëpp nag rawatina nag waa Wakaam daanaka euh, euh, suñu jëwrin woote woon na ci waañ wi di woote waa Wakaam waaye ñu nit ñu ngi woote waa Wakaam di ko jaarale si jëwriñ document jëwriñu maj mu nóoree ni bu Wakaam kon daal ñu ngi yemal foofu kàddu yi di tuub bu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonante bi di sant di santati Serigne Touba sant gu wér a wér di sant tey ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi te wéral di siyaar itam tey ñaanal sëriñ Moustapha Al Karim muy xalifa buy bind yàlla yàggal ko fi te wéral ko di siyaar mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci jataay bi di ko jaarale ci sëñ Jiili Mbacké Abdoul Aziz di ko ñaanal gudd fan ak wér di siyaar mboolem kilifa yi ne ci jataay bi di ko teg ci loxo sëñ Jili Mbàkke président comité de pilotage mu jàllaleel ñu ko ci ñim ko war a teg ñëpp di sant nag mboolem comité de pilotage bi di ko tàmbalee ci sëriñ Basiiru Mbàkke Xaadim Awa Ba ci taxawaayam ci liggéey bii nga xam ni moom lañu ñu ànd ak moom muy journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñuy xamal mbooloo mi nii ñuy dalal mboolem mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew di leen tatagal di leen wax ni ils sont les bienvenus di leen sant bu baax a baax ci seen teewaay di leen gërëm di leen wax ni le 19 janvier une le 19 le 19 novembre incha allahu rabbi fii ci CICES bi amul carte amul dara li ñu ci soxla mooy kenn ku ci ne booy jóge sa kër. na nga sañ sa ba jekk xeeñoo sa parfum bu neex ñëw toog jël si xéewal yi nga xam ni moom lañ fiy joxe ngir Serigne Bara Mbacké bis bi nag sëriñ Ahmadul Maxtaar sëriñ Maam Cheikh Anta moom lañ ko tuddee muy borom dërëm ak ngërëm ak sëñ affaire akam kon ñu am yaakaar tey sàkku ci barkeb borom bis bi képp koo xam ni ñëw nga fi yàlla sama borom defal la tawféex ak xéewal képp koo xam ni indi nga fi tawat jum mën a doon wala leneen lu mu mën a doon rek booy delluwaat yàlla sama borom defal la ci tawféex defal la ci xéewal ñuy siyaar ñëpp di gërëmaat ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aousu billahi samihil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana wa ala wa ashaabihi wa xadimihi sëriñ basiru ñoo ngi lay nuyu ci kaddu mbooleem waa daal Muxti yi ndaxte yaakaar naa ne sëriñ Abbas sëriñ Moustapha Absa sëriñ Abdourahman sëriñ Modou Makhtar ñoom ñëpp njabootu borom daaru lañ waaye njaboot gi genn la ndax sëriñ Touba borom daaru genn la kon loolu moo tax ñu ñëw fii ñëwaale fi mbooleem waa daal Muxti yëpp di la sant ci yëg googu noonu ndax nit bu génnee àdduna ñaan rek moo koy jariñ mbooleem lu ñuy def ci ay njàngum xasit ak alxuraan ñu ñaanal leen ci kon di la sant ci sa matale ak sa doxu mbokk ndax mbokk yi bëri nañ léeg-léeg da ngay am mbokk bu jege jataay bii mbokk yu jege mais du ngeen xamante te jataay yi dana tax ngeen di xamante kon loolu ñu ngi la ciy sant bu baax a baax loolu tamit dana permettre ndaw ñi ñoom ay référence ndax loolu tamit mooy solo si dëgg-dëgg laxad kaana fi xasasihim ibratun li ulil albab dans leur récit il y a certes des leçons pour les gens doués d'intelligence loolu mooy importance bi kon boo defee loolu di wane sëñ Mouhamadul Amin ci njàmbaar gi donte ay atam bariwul ci zahir waaye référence la ci Sénégal boo xamante bi ne ndaw ñi mën nañ koo jël teg ko seen kanam kon loolu mooy solo si bis bi loolu tamit la alquran di wax inna nax nuhyi lmawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imamin mubin kon sëriñ bi sa jaan wàcc na waaye nag sët mooy nekk maam ndax même sëriñ Touba gis nañ ne bi muy wax ci mu waxibul quddus dafa wax ne xaala ahmadu al bakkiyu ibnu balla moom référé wut ci sëñ Mamour Anta Sali mi ko jur waaye dafa dem si maam balla mi nga xamante moo njëkk maamam ju njëkk kon yow boo ñëwee ci sëñ Baara di ko melal nii mooy wane rek am nga cër bu rëy ci moom kon loolu ñun waa daal moxti yëpp wala ñun yoonu murid yëpp wala Sénégal yëpp wala ndaw ñëpp amel la ci cant di ñaan yàlla dëgëral la yàlla kattanal la ba li nga bëgg nga def ko bi barakati Cheikhul Khadim wa salaamu aleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim hamdan li rabbil alamin wa salaamuhu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa ma yujaarihi fi lmaydani min ahadin fi l ilmi laa laa yujaarika fi lmaydaani min ahadin fi lilmi wal ilmi aw fi ljuudi aw nasabi aw fi ljuudi aw nasabi loolu la Cheikh Mouhamadul Fadil waxoon rakkam ju baax di Cheikh Mouhamadul Amin loolu rek nag doyoon na sëkk ci xamal ko ne ko ñi yàlla sàkk ñëpp kenn ku ci mel ni yow cib xam-xam sunu borom sàkk kenn ku mel na yow ci lewet sunu borom sàkk ko kenn ku mel na yow ci tabe sunu borom sàkk ko waaye nag aw askan moom yemoo cee kenn ndax sëriñ tubaay sa baay soxna mooy sa waajur wu jigéen Cheikh Mouhamadul Amin Baara moomu nag la sëtam bu baax bi di Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke xaarim awa di fàttaliku ni ñu ko xamee ren jii mooy fukkeelu édition ak juróom ñu di ko defee fii ñu ko baaxoo woon defee le 19 novembre incha allah di ci woo mbokki jullit yëpp di ci woo mbokki taalibe yëpp njabootuk Serigne Touba gépp waaye nam di ci woo ndaw ñi nga xam ne dañoo toll ci bunt àdduna te war a am ay référence yoo xam ne nii mooy nekk seen tegtal ci yoon wi ñu war a jaar te jàpp naa ne Cheikh Mouhamadoul Amine way wii ñu tàmbalee rek ku ko jàngat dëgg danga xam ne nit la koo xam ne nii sunu borom daf koo bindoon denc ko mu nekk wërsëgu jamono ji rawatina njabootu sëriñ Touba gi loolee nag moom la Cheikh Mouhamadoul Bachir di woote woote boo gis dafa am maanaa wootewul rek ngir bëgg ku ko xam ndax bu doon loolu war naa doy ndax foo tudd Cheikh Mouhamadul Bachir Xaadim Awa ba xam nañ ko bu doon da koy def rek nag ngir bëgg ku koy yëkkati sunu borom dimbali na ko waaye nag dafa xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Baara njariñu réew mi la kon gone yi nga xam ne dañoo toll ci am référence nañu wuy si woote bi incha allah bu ñu ñëwee ñu taataan dikk gi lépp gratuit la amul yor naa carte amul yoruma carte l'islam la ñuy wooteel kuy ñëw niñ ko waxee nanga nga te taataan sa xol te fas yéenee root ndax man wa man araxa waliyan fa ka annama ahyahu dafa mel ne le 19 Cheikh Mouhamadou Lamine Baara lañ bëgg a delloo ci kaw suuf jël ci moom ay njariñ jël ci moom ay darsu yoo xam ne nii des na ko mën a jariñoo sunu kanam ba déwén wala sax ba keroog sunu borom di wal bufti bi kon Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi woo ñëpp di séentu ñëpp di wax ne bis bii mook jullit ñëpp ñoo ko bopp te mi ngi leen di yëgal bopp gi ñu ko bopp mi ngi leen di xamal ne ëpplewu leen ci dara lu dul la leen ci waroon ci ab coono tam féete leen ci loolu rek la leen la leen lu dul loola rek na ngeen xam ne seen bis la mi ngi leen di tàllal loxo te di leen séentu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilan bàyyi bàyyi bu wëri alaaji wa barakaatu déglu déglu ginnaaw bi ma nuyoo sëñ mu sëñ Muntaxa ko ñaanal mu yàgg fi loolu ak wër maa ngi ñaanal tamit sëñ Abo Mbàkke yal na ko yàlla defal guddi fan ak weer di ñaanal sëñ Moustapha Mbàkke mu alaaji baara Mbàkke falilu yàlla defal ko jàmm koy leen bii mu yenu defal ko comme def ni liggéey bi mu def ko ni mu ko bëggee ñi ngi sant bu baax sëñ sëñ Bass Khadim Awa Ba ci bis bi nga xamante ni moom lay wooteel maamam muy Serigne Bara Mbacké di sama turandoo sëriñ Alaaji Bara Mbacké Falilu ah di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg organiser bis bi yàlla defal ko ci lu kawe njortam di ñaanal di ñaan suñu mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk Dakar ak li ko wër bu bis baa ñu ñëw ñun ñëpp ànd ak moom euh, ñaanal sëñ Baara nekk ci bis bi defal ko ci li nga xamante nii rek moom lañu taalibe war a mën a defal sëriñam ci xewal di sant bu baax a baax di ñaanal sëñ te di ñu ñaanal ñuy ñaax ci sëñ bi dëgg yàlla amuñu fayam yàlla defal jàmm bis bii mu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa borom Touba barke borom Touba barke Cheikh Moussa Absal Karim ñu lay nuyu di siyaare di siyaare sa mbokk yu tedd yi fi toog di fàttali lu tuuti rek loo xam ne ci ku tedd nga xewoon ca làmbar bañ ko yóbboo làmbar ne ko ko fa yóbbul daf ko observé ñetti fan nee gis na sëriñ bi day bind bu diggee xaaj mu taxaw di julli ba fajar léegi su amul courant dootu mën a bind dootu mën a julli kon nañ coupé courant wu làmbar na bi li tax sëñ Baara amul morom ñu coupé courant wu làmbar bi sëñ bi jant bi so amul fu mu ute làmp bitig bu mu song ñu ne ko am na fi almet am na fi waaye dañoo taf ne ku ko jaay ñu tëj ko six prison sëñ bi dellu siwaat jàpp njàpp mu set génne dërëm bi sànni ci kanamam toog di xaar yàlla suñu borom neen nees tuuti ñu gis benn projecteur bu tàkk ci jaww ji di ñëw tàkk ba ñëw tiim ko raay tàkk commandant bi ne bi ma ko gisee damaa jël sama tablier ñëw teg jël cafetière u café teg xool projecteur bi branché wul fenn mën naa seet projecteur bi fan lay mujjee ak sëriñ bi nee na sëriñ bi julli ba fajar ba jant bi bëgg a génn projecteur wàcc ba tiim ko na tàcc xar def na weer wa defoon ci rasulullah sallallahu alayhi wa bii wër ko ci ndeyjoor bii wër ko ci càmmoñ ñu booloo ci kanam ne ko asalaamu aleyka ya abi sëñ Tuubaa si gi xool ko ne ko man huwa kii kan la mu ne ko annaa muhammadun lamin waladuka man la Mouhamadou Lamine Bara Sall leer googa nag moo jógewaat foofu fenkaat fii di Mouhamadou Bachir kon kii yàlla na yàlla guddal fanam njabootu Cheikh Moustapha ak sa gépp jàppante nañoo ak yow fasante nañoo ak yow kóllëre goo xam ne yombal xiyaamati ak bara la jëm njabootu suñu Abdourahmane gépp noonu lañ fasante ak yow ñu ngi lay ñaanal fu ñu toll di la xamal ne li nga defal sëñ Touba ci dëkk bii su pay gi ñëwee li nga xam ne sëñ Touba rekk jaral liggéeyal ndax moo waxoon ne uxiinu kullu muslimin wa muslima wala ulaahi daran man salama man maay avocat défenseur bépp jullit bu góor a bu jigéen looloo sababu sëñ Basiru woo tarix yi yëpp ñu daje fi kuy jullit bu góor a bu ndax sëñ Touba si avocat défenseur yàlla xam ki ñu maa ngi lay xamal ne sëñ Kara Mbàkke la sëñ Kosom xalifa sëñ Moussa Absa yebal muy taawu sëñ Koso di taawu sëñ Moussa Fa taawu sëñ Mouraw Ball sëñ Mouraw Ball di taawu Thierno Thierno di taawu sëñ Touba kon daar si gépp ñëw nañ fi sëñ Xaadim ñëw na fi léegi dégg ngeen li fi wax moom sëñ Abbas te lam wax la daar mu si gépp wax waaw ndax ñun xam nañ ko xam nañ fi mu ko kon sëñ bi ma lay xamal ne le 19 ñun liñ lay ñaan nga may ñu fu suñu fetal yi tàkkee fii rek dana yëngal Ndakaaru ba ñëpp xam ne Darou si ñëw ñëpp a ñëw kenn du des yal na la yàlla taxaw ndax yow la kat yow la sëñ Baye Jaxate waxoon sëñ Touba moo la dal sëñ Touba da génn ko Ababacar mu am na ko jaajë jaajëti ma àdduna may bëgg a yóbbu sëñ Baye ne bërëg ne ko yow ca guddi nga woo mbër yëpp daane leen ñu xëy di miim. nga woote ci bëccëg daane leen ñu far ne xëy ku lay sóoru day ndaw rek tey ndaw lu kenn yaru ne asal kuñ yar la wax mu def ko te sant moom dangaa bari ab xam-xam réyum xel te dëru fit réyum judd nangoo su fëggam yàlla yaa ñu tiim sëriñ nga bu far dib sang dib jant dib gawar di buurub jullit dib jaamu ko tax nga mbër yépp luum yow wàllu yu nga ab tap nga ab muñkat nga yaa jafeñ ku tedd nga yaatee ñiy bërëx ñëpp bokk géem sëñ Tuubaa yëkkati loxo ne ko sudul woon man kenn du tàkk bay géem kon yàlla yàlla may nga yàgg fi jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di la nuyuloo nag sama nijaay sëñ Ablaye ak Cheikh Moussa am na yàlla tax taxaw wasalaam ba le 19 wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu jël kàddu gu tedd di ko jël ci ndigalu suñu kilifteef Serigne Bassirou Mbacke ibnu Serigne Khadim Maodo Cheikh Mouhamadou Lamine ah bu ngeen gisee ñu jox kàddu gi dafa woote sant Cheikh Mouhamadou Lamine xam ne Serigne Touba dafa am ay bokk mu tàmbali ci kër maaram gépp ba ci sëñ Mame Balaye sa mi caatum maaram indi Cheikh Ahmadou Bamba mu indi ñi tudde bis bi tey kon Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi lay ndokkeel di la wax ne képp ku sant Mbàkke te bokk ci maaram danañ la wuy si tàllal nañ suñu loxo kër yu diine yëpp muy bokk ci alaaji Malick ku bokk Tiwaawan tarixa bu mu mën a doon ndax maam Maaram Mbàkke mooy réew mi sa wajur Serigne Bachir Mbacke Serigne xaarimaw ba mooy kéemtaalug yoonu murid waaye Mouhamadul Bachir bu ñëwee ne mooy wane Cheikh Mouhamadul Lamine sëñ Muntaxa di Cheikh Mouhamadul Bachir Serigne Bachir ñun danañ ne wuy si ak faali ya shiran masuna laahu xubban wa laa ilaha illa allaahu kenn du Cheikh Mouhamadul Lamine merci beaucoup